ñu ko dugalee rek dafa sens match bi yéen a gi ne sonal na lool défense ñi nga xam ne ñooy waa Burkina Faso Sadio Mané ma ngi woon fépp dem ba final neex na lool waaye nag jël ko bi moo gën a neex loole nag kàddu Sadio la yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abou daat nay wax ne coupe bi nag Sénégal daf ko war a jël jamono ci maanaam yor nañ arme yépp ngir nag jël coupe bi fii ci Cameroun yóbbu ko Sénégal yéen a kaay gi di record xëy duñu xibaar naan ñu bii nag moo nekk ñaari final yoo xam ne a kaay amul lenn loo xam ne ni ki démb daat nañu koy bàyyil ñi nga xam ne ñooy waa Burkina Faso yéen a kaay gi di esat xëy duñu xibara naan ñu sunu gaynde yi jamono ji nag dañoo ñàcc ci kaw ñi nga xam ne ñooy waa Burkina Faso Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal ci yéen a kaay gi di esat ak Le nee na jamono ji bu ñu waxantee dëgg jege nañ coupe bi lool lool lool jege nañ ñu ko loola yéen a kaay gi di Sud Quotidien ba tey moom Aliou Cissé nee na nag dañoo ñëw fii ci Cameroun nag ngir jël coupe bi Matar Ba ministre bi nga xam ne moo lañ dénk wàllum tàggat yarama nee na nag Sénégal mérité na lool li nga xam ne mooy victoire bi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Bertrand Traoré a bu Burkina Faso bi daan na yëkkatay kàddu nee na njortu na ne mooy jël li mooy coupe bi yéen kaay gi di Les Échos Sadio Mané ak social noonu ko journal bi di Les Échos ci xëtamu njëkk yéen kaay gi nee niki démb Sénégal gi ñëpp a kontaan explosion de moo am niki démb ci njiitu réew mi di président Macky

Samba Diéné maanaam ñoom ñaar ñëpp yem suñu na kuñ si am nag jëla yéen kaay gi Aliou Cissé nee na nag ñun ñëwuñu Cameroun ngir nag football ay final dañoo ñëw nag ngir jël coupe bi yéen kaay gi di Sud Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne daat nañu koy jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 niki démb la ñu ko xamle ginnaaw conseil des ministres yéen kaay gi de Les Échos njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb ginnaaw digg ba jekki woote na li nga xam ne mooy secrétariat exécutif bu APR daat nay jaaj ji ñi nga xamante ni nag ñooy waa Benno Bokk Yaakaar kaay gi di réew mi quotidien nee na frontière Mali bii nga xamante ni tëj nañu ko lu toll si junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett ci ay camion yoo xam ne dañoo yeb ba fees carré fi nga xam ne mooy frontière bi moo tax nag chauffeur yi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji sonn nañ ba maara de tale yéen kaay gi di Les Échos nee na nag ñaari góor jigéen yoo xam ne dañu leen a bett si juma amitié baaw baab kraak maanaam ñuy sim seen mariŋaañ yi jamono ji nga xam ne maanaam sénégalais yépp nag ñoo ngi concentré wo li nga xam ne mooy match bi doon dox diggante Sénégal ak Burkina faso ñaari góor jigéen ñi ñoom ñu nekkoon nag ci terrasse jumaa jooju maanaam di def nag ñaaw ñaawteef yooyu teg nañu leen loxo yéene kaay gi di vox populi xëy yóbbu ñu Touba Fall nee na nag foofee lu doy waar moo fa dafa am benn xale góor boo xam ne fukki at ak ñeen la ma moo violé benn parental boo xam ne ñaari at la am yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu coup d'état bi nga xamante ni moom lañ doon wàcce ci Guinée Bissau am na lu toll ci fukk ak xam ne ñàkk nañu ci seen bakkana yéene kaay gi di La Tribune nee na lu jëm ci wàllum njàngame ak njàngale me jamono ji nag daan nay gëllu góoseel